doomu Youssouf yooyu ñëw ci yaas ci Youssouf doomu doomu Yaaqoob yooyu ñëw ci Youssouf alayhi salaam te booba fukk lañu seen kër mu ngi nekkoon ci booru suufu si ci bunt yi jëm sàmm te ñooñu niti badiya lañ niti àll lañ yoo xamante ni ay sàmmul rek ak sàmm càmm rek lañ xam ak mbay topp ci jur gi bi nga xamante ni dugg si nañ. ndax euh, Égypte dëkku taax la ñoom ña nga jóge ca àll ba ba ñu dugg si rek Yusuf xool leen ak seen melokaanu euh, àll ak melokaanu baykat bi ñu rek ak sàmm mu xool leen xàmmee leen moom Yusuf waaye ñoom nag xàmme wuñ ko ndax ci niti nguur la bokk ñu toll nii col col gi muy sol ak melokaan wu ñu mel jamono bu ne du bokk ak nit yi àll ba nu ñuy mel moo tax ñoom ñu di ko nattale wax nañ ne li tax ñu réere ko mooy loolu yi mooy dafa sol col goo xamante ni bokk rek seenu col ndax col gu mel ni di bóori fira bóori mesra di sol moom la sol toog ci kaw lal bu rafet am benn benn benn seenu or boo xamante ni dafa nekk ci baat bi léegi jëmmi boppam mu teg ci mbaxanam rafet moo xamante ni mbaxanam gurus la lool yi moo tax xamuñu ko ba noppi it am na lu dox seen diggante ak moom maanaam moom mi nga xamante ne mooy kilifa gi ñi ñëw di jënd si jamono bu duñ mën a yaakaar moom rek dina am lu mel ni weer lu dox seen diggante loolu moo tax xàmmeewuñu ko loolu la yàlla di wax ne wa jaa ixwatu yuusufa fa daxaloo alayhi fa arafahum wa hum lahu munkiroon mbokki yusuf ñëw dugg si yusuf xam leen waaye ñoom fakk nañ ko xàmmewuñ ko xam kii mooy yusuf wala jàpp nañ ni amatul sax bi nga xamante ne Yuusuf xool na leen ñu làkk ko làkk Ibrahima seen làkk wañ daan làkk mun leen xibaar leen ma yéen ñan ak lan mooy seen mbir ndax man de seen mbir maa ngi koy nattale ñu ne ko ñun de aw gaay lañ yoo xamante ne ñu ngi bokk ci waa saam ay sàmm lañ it dañuy sàmm léegi di bekkoor bii rek moo nu jàpp ak ko xiif ñu ñëw fii di fi sàkku si ab dund mun leen yéen de mootul ay agent secret ngeen ay nit ngeen yoo xam dañ leen yebal ngeen di fi gëstu ci ay mbir di xool ci sama sama sama biir réew pour pour di ko leeral ay sérité ngeen daal bootul ñu ne ko déedéet wallaay giñ nañ ni ñun duñuy sérité duñuy agent secret ñun ay mbokk lañu yoo xamante ne ñun ñëpp benn ñoo bokk baay ay doomu baay la ñun ñëpp suñu baay kilifa gu mag la ab yonente la it ci yonente yàlla yi la bokk ñu di ko wax yaa xaw Yuusuf ni leen yéen ñaata ngeen ñu ne ko fukk ak ñaar lañ won waaye da cee am ku ku manki ci noonu ko xamante dafa réer ba ko ci àll bi kooku nag moo gënaloon sun baay sun baay moom la gënoon sopp ci noonu mu ngeen jamono bi ñu ñaata ngeen ñu ne ko fi ñu nii fukk rek lañ mu ngeen ana ka ca des ñu ne ko kooka ma nga fa sun ndax mooy mbokkum ka faatu ka nga xamante ni daa réer ba kenn xamatu ci moom dara mbokkam ni mu mbokkal ndey ak bàyyi moom la suñu bàyyi téye ngir di ko miisalee kooke di ci miise kooka mun leen ana ku fi xam ni li ngeen di wax dëgg la wala du dëgg léegi loolu ban tegtal laa mën ci yéen du ngeen ay agent secret li ngeen di wax dëgg la ñu ne ko nun day ci am réew lañ nekk ñoo xam ni dëkk bii ñu dëkk fii muy miise di wax dëgg kenn xamuñu ko mënu ci am benn seere mbaa benn tegtal يوسف نرى المبقى مؤمن جند وحني أم جنكو أن دلن مكو موي فأتوني بأخيكم الذي لا بكم إن كنتم صادقين مبقى مؤمن وحني مؤمن جند بقال بايت بقى تنو ممتاي تسين بايت ريكو جدا كبا بفكير لين جند وحد دقلا أن دلن مكو بخ لول دار موي دي مغنال ينوكا لول دي دانا تير لوسون باي لول ndax mom day ba mbokam momé nang ñe faaw reer ba lek di nangu tata xale ko mom ndax ci lay misé waye nak dana ñu sakku rek ba xam dana dana may lolum def suñ demee daal danañ ko sàkku ci moom mu ni leen bàyyi leen fi kenn ci yéen mu doon ak tayle ba bu ngeen ma indilee seen mbokk moomu ñu daal tegoo ay bant ci seen biir bant bi daal ci kaw ko ñuy wax sama oon moom toog fa remplacé fa doon fa ak tayle ba ba ñuy mën a andi kañ soxla لريم ابو العرفان دي ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني باخ لكم من ابيكم على ترون اني اوف الكيل وانا خير المنزلين من دين بام لين واجي لا نوبي نيل نك بوين ما انتو سين بوك موم نين بوكال باي دي دو نين في جيلي اك نات ني دادي ديم ساكو سي سين باي نيكو كات كافاي نات كات نونو نغي نغا يابال سون بوك مي دي بو نيامل مو ما دونو ناتال bi nga xamante ne nattal na leen ba noppi nag ba bàyyi fa ak eh, kenn koo xamante ne moo fay wóor moo fay toog doonu tay la ba ba ñuy indi kam leen laaj bañ fa tegee seeni bagage mu wax ka doon natt ni ko fabal seen liñ indi woon nga xam ne ci nga war a jënde dund bi xaalis bi ñu la joxoon njëg gi na ko fab dugalaat ko ci biir mbuus yi nga xamante ni moom nga leen defal ñam bi liñ war a lekk mu fab njëgu njëgu ñam wa dugalaat ko ci biir ñam wa takk ko ci saako yëpp tegal leen ko foofu ci seen bagage bañ demee ci seen baay ñu ne ko day gis nañ fa ku baax koo xam ni wàccee nan wàcc waay bu rafet saral teraanga ju mat dafa mel ni sax bu doonoon kenn ci nun nga jur ko it day lam nu defal mënu koo weesu maanaam bu doonoon doomu yàqoo it mënta weesu teranga ji nu defal daal du ko du nu mën a teral teranga ji ko weesu yu ba yàqoob ni leen kon bu ngeen dematee ci moom day na ngeen ma ko nuyul te na ngeen ko wax ni ko sun bàyyi day mi ngi lay ñaanal ndax yiw gi nga nu defal ak teranga ji nga nu defal daal leen di wax ne leen nag ay ana Samhoon seen bàyyi ne ana Samhoon ñu ne ko ah, buur ba kat da ko fàttee ngir dafa wax ne Bunyamin mii day ñëw léegi ñu ne ko buñ demee danañ danañ sàkku danañ laaj suñu bàyyi mu boole nag moom mu da koy téye ba nga yebal Bunyamin ba noppi ñu wax ko xissa bi ni demee dal ak lam doon tiit ci ñun ak yooyu ba tax na nee na wala mu mën a am yàqin ci ñun duñu ay agent secret daal fokk suñu mbokk mii jóge Kanaan da nga koy yebal mu ànd ak ñun dem léegi nag moo tax mu téye Samhoon ni moom la fi def tayle ba Bunyaamin teew ba noppi ñu ni ko nag boo yaboo bàyyi Bunyaamin mu dem ànd ak ñun rek ndax danañ ko jéem wattu kon luñ man Yaaqub ni leen hal amanukum alayhi illa kama amitukum ala axihi min qabl ndax danaa leen ci wóolu su ma leen ci wóoloo it day moog lu demee ni loolee rek bootul mooma ci dalati ndax ku jëkk ka muy mbokkam day Yuusuf ba ma leen ci wóoloo da ngeen a dikk di ma andil ay lay ay jafe-jafe fekk ma ci waaye nag fallaahu xayrun xifsan wa huwa arhamur waaye nag yàlla rekee watoo te mooy ki ëpp yërmande ci way yërëmee biñ ñëwee ba agsi ci kër gi ba ubbi bagage yi ñoroon gis ni lañ jënd man njëgu njëgu ñam wa sax delloowaat nañ ko ci seen biir ñu daan ne haasihi bidaa'atunaa ruddat ilaynaa ñu ni day lañ yóbbu woon di ko jënd di jox nañ na ko joxaat na ko kii ku tedd la ndax daa mel ni dana jubloo may ñam bi sax ñu ne ko yaa abanaa maa nabgi haasihi bidaa'atunaa ruddat ilaynaa wa namiru ahlanaa wa nahfasu axaanaa wa nasdaadu kayla ba'iirin zaalika kaylun yasiirun ñu ne ko kii baax la ndax léegi lañ yóbbu woon di ko war a jënd ñam wi jox na nu ñam wi dugal laale ko ci biir kon kay kii boonu booleeg suñu bopp ngir wax dëgg bu ñu demee day baax rek daal ki waax a waar a waar waar dal ba mu ni kon boo liggéey dinaa leen boole ak buñ yaa min ngeen ànd ak moom dem yàlla nag mooy ki ma sukkandiku bu mu waxee loolu mun leen du ma ko yabal nag te du da ngeen a man jox ma kóllëre gu wér koo xamante ne da ngeen koy dalante yàlla ne da ma ko indilaat ndare bu da ngeen dem ba ñàkk pexe rek mbaa ngeen alku yéen ñëpp bu ngeen demee ba amul nag nan pexe mbaa ñu ray la ngeen ñëpp daal maa man koo dégg waaye bu loolu nag da ngeen di da ngeen di dalante da ngeen ko indiwaat ñu dalante rek moom jox ko seeni i ngiñ ak seeni waat ne ko doy fokk dañ la indilaat sa doom buñ ci amee menn pexe bu nu dara notut danañ ko indiwaat mun leen wallaahu ala ma naqul wakil bañ demee bay bëgg genn mun leen nag li ma leen di digal mooy bu leen duggandoo misra ci benn bunt na ngeen dugg ci ay bunt yu bokkut ndax lam doon ragal ci ñoom mooy dañoo doonoon ñu taaru ñu rafet aw melo ñoo xamante ni ay njool lañ ba noppi niro bo leen xoolee ni ñii day xam naa kenn leen jur mu bañ nag cat di leen jàpp mbaa bët bu ñaaw ba tax mun leen bu ngeen dee dugg misra na ngeen tàqali ko ñan ñu ne nañ dugge ci bunt bu leen bokk fu ngeen dugge nee nag waaye nag duma leen amal benn njëriñ ci yàlla de ndax lépp atte bépp ci loxol yàlla nekk ci moom laa sukkandiku kon kuy sukkandiku nanga sukkandiku ci yàlla bañ ko defee na leen ko saa yéen bàyyi waxe woon ba ñuy dugg misra misra am ñeenti bunt ñu dugg ci bunt yi bañ a àndandoo waaye loolu de taxut mu am njariñ ci lañ doon ragal muy rek bëgg a deel seendoo ñoom ñëpp rek fokk rek dina am lu ca dugg ci biir buñ demee ba dugg ci kër nga Yuusuf nekk béréb ba Yuusuf nekk ni ko ki nga nu doon laaj day mi ngi nii andil nañ la ko mu ni leen def ngeen lu rafet da ngeen ci sant bu soo danaa leen defar lu rafet loo xamante ni dangeen ci aw dangeen ci sant daal leen di wàccee teral leen ganale leen ñaar ñu ne mu boole leen ñu bokk benn taabal tim ak lek binyamin des mom mi fukkeelu nit ak ben amul kenn kum bokkal taabal wér gi mu wéet tax mu daal di joy daal ni sama mbokk yusuf day bu fekkoon mi ngi dund kon dana toog kon mu toogandoog man ñu bokk place buñ toog di lekk yusuf ni leen seen mbokk mii lu tax mu des moom képp wéet amul kenn kum bokkal ñu ne ko ñaar ñu ne ñoo bokk waaye moom mii amul ko mu bokkal Yuusuf ni la kon naa toog wéttali ko moom ci boppam bokk ak moom benn taabal bokk ak moom di lekk bi ñu demee ba guddi jot mu tëral leen ñaar ñu ne bokk fu ñu tëdd moom moom yi muy Binyamin wéet moom képp amul fu mu tëdd चेसामा turu ñu jaay ci sama turu menn mbokk mu ma bokkaloon ndey tam alko maanaam faatu bu yàgg tax nga xam nekkatu bi yuusuf kenn ki yuusuf la tudd mu kenn ki yuusuf la tudd kenn ki baaleex la tudd baaleex كانك أخير لتلو كانك أشكل كانك أحيا كانك خير كانك نؤمن لتلو كانك تدو ورد كانك تدو رأس كانك تدو حيثم كانك عيتم مونيكو تري لا لومي تاكي مونيكو كي تدو بالي عن سمان بوكو لما وخنا كنا سوف سيكو ونن أخير نك dafa doon ku nga xamante ni moo doon jànkoob sama yaay ak sama baay nga xamante ni moom rek la ñu am ci jànk mu ne ko askal dafa doonoon sama mbokk moom moo bokkal moo bokkal ndey mu ni ko xay yi nag mu ne ko xay yi moom moo fi nekk ba fi mu bi dama koy gàtt ngaal rek ak dund mu ni ko xayr mu ni ko dafa doonoon ki gën ci ñun mu ne ko Noomaan nag mu ne ko defaloon na ko nooy ci diggante ñaari way juróom mu ne ko ward nag mu ne ko war dafa ne ni fleur ci ab taar moo tax ma ko ward mu ne ko rës nag mu ne ko dafa meloon ci man ni bopp di mel moo tax ma fonk ko tudd ko mu ne ko xaysam mu ne ko xaysam li ñu tekk mooy aji dund xaysam nag mu ne ko xayitam mooy koo xamante ni xolam day sedd fu mu toll sama mbégte rafet ci moom loolu moo tax ma day ko waaye xayitam Yuusuf ni ko ndax bëgg nga ma doon sa mbokk wecci ko mbokk ma nga xamante ne moo la réer te ngeen bokkoon ndey Bunyaamin ni ko yow buur mbokk mi mel ni yow kay ku ko mën a am du ko bañ mukk waaye nag na nga xam ni doo doomu yàqu kon buma la defé mbokk it amaguma mbokk ndax bokkuñu bay sama yaay ya, ya, rahil diru la ba tax na su mbokk yi wax deug ni mbokk mu manan jaamu ko gënal way na taxu ñu bokk bay taxu ñu bokk ya nena ya. yusuf joy dal koy tax ci boppam kon ko ni ko xana xamoo ni man ni may sa mbokk ma reeral bi yusuf fala ta isma bi maakaam xol bul tit bul wañ sa mbokk ci li nga xamantene moy bëgg xew man mii may yusuf ma len reeral ma ñëw bokk leen waaye nag bu leen ko xamal nag bu leen ko leeral kenn bi mu ko leeralee loolu moom Binyaamin bu noppi Yuusuf daal di fab woo mbokk yi nag dajale leen nattal leen seen i natt nañ ko bëggee yanal leen sëfu gileem daal di leen di sëfal kenn ku ne sëfub gileem daal di leen di bàyyi Kaab nee na bi nga xamante ne Yuusuf wax na Binyamin ni ko man ni maay sa mbokk Binyamin dani ko na nga xam ni kon fii dootuma dañ leen di bàyyi ñu dem waaye duma tàggoog yow Yuusuf ni ko déedéet yow xam nga njàqare li nga xamante ne suñu bàyyi jàq na ko ci ñàkk gi ma ñàkk bu fekkee teye naa la fii te léeralu te xamul secret bi day yokk njàqare ba loolu sax na koo tey duma am benn point bu ma mën a téye fii lu dul benn mbir boobu mu ni ko ah, mu ni ko dañuy siiwal ni danga nga jël dara maanaam da nga def dara lu jar ñu war laa téye mu ne ko defal na mu la neex la lépp fàllewu Yuusu daal ni ko damay fab indaal ji may natte kon ko ci sa biir sa biirub saako gannaaw bi nag ñu woote bu ngeen demee bay dem ñu woote ne da ngeen a sàcc bu ko defee bu ñu ko gëstoo ba fekk sa saako ma wax ne dama lay téye ndax loolu mooy àtte bi dox ci te boobaa duñ xam secret dëgg dëgg Bunjaamin d'accord rek moom ci loolu ñu nattal leen daal di fab àndaar ji dugal ko ci biir saako Bunjaamin ñu dem bañ tàggu leen bañ leen aj bisimilah mën ngeen a dem ñu dem bay bëgg a jàll am ku déclaré ne eh ayyuhal ayru ayyatuhal ayru innakum la saarixoon eh yéen jégg bi yéen jégg yooyu da ngeen a sàcc de ñu dab leen ni leen yéen jégg yi da ngeen a sàcc ñu daal di taxaw di xaar kooka ba mu agsi ci ñoom ba mu agsee ni leen ndax teraluñ leen dëgg dëgg teral ndax defaruñ leen wàcc waaye bu rafet yéen leen aakay ñun leen ndax natt rek ñu leen nattal nattuñ ko natt bu rafet ñu ne ahaka ñun leen wóor na leen li leen defal defaluñ ko kenn ci ñi ngi teen ñi ngeen ci dikkandoo leen di wut si ab dund wóor na leen li ñu leen defal defaluñ leen ñu ne wallaay loolu lépp dëgg la leen nag àndaar gi nga xamante ne mooy àndaare bool bi ñu doon ci natt dafa réer te tuumaluñ ci kenn ku dul yéen ndax gisuñ ci ñeneen ñoo xamante ñoo ko war a mën a jox ñu waat ni tallaahi laqad alimtum maa ji'naa li nufsida fil ardi wa maa kunna saarixiin wallaahi giñ nañ ni ñëwoon fii ngir yàq giñ nañ ni ñun duñ ay sàcc ndax ñun day lim duggee yoon wi soo bu jógee kan xaan ak léegi day amul kenn koo xamante ni laal nañ la tooñu kenn wi laajal nag mboolem dëkk yi ñu jaar ba xam ndax tooñu ko kenn bi bañ nañ ko ba daaba yi ñu wat sax bu ñuy dugg ab dëkk dañuy fab ay mbuuga dugal ko ci seen gémmiñ yi ngir bañ ñu lekk ci yëfi jàmbur àq dañu ci topp kon xam ngeen ni ñun sàcc topp na ji seet leen nag wasaloo ahal xel laaj leen nag mboolem ci nga xamante ne jaar nañ ba xam ndax lor nañ ci kenn mbaa ñu yàqal ci kenn dara tey dërëm yi nga xamante ne bañ demee da ngeen noo nattaloon ba noppi fab dërëm ya dugal ko ci suñuy mbuus bañ demee ba ak gis dërëm ya dañ koy delloosiwaat xamal leen ni loolu ndax da ngeen a jom ndax li nga xamante ne moom lañ leen fayoon da ngeen ko dugalaale ci biir natt loolu bu fekkoon ne ay sàcc lañ dañ ko delloo si daal joxe joxe joxe leen daal li am daal mooy àndaas bi réer na te yéen lañ ci tuumaal kon léegi dañ leen di seet dañ leen di wis waa bu waa ji ni leen daal ndaw li ni leen daal moom daal àndaari buur beer te dama cee wóolu ba dénk ma ko te bu fekkee ni seet seetu ma ko ba gis ko day danaa tiit ci sama bopp ni kon bu wutul daañu ma folli place bii ma am dama koy ñàkk léegi nag yéen ku ko ci andi delloo si ma ko day danaa la neexale sëfub gileem maanaam danaa sëf ak gileem ba mu fees ci aw ñam ma neexale rek léegi te loolu maa ko garanti léegi am ku ni ku ne ko ñun dey yàlla tere ñu ñëw fi ngir sàcc mun leen bu fekkee yéen yéen ko sàcc léegi bés nañ ko bu fekk ko ci yéen nag yéen itam ana lan mooy fayu kookee ko sàccoon ñu ne ko ah ko képp koo xam ni fekk nga ko ci biir ay bagaasam am kookee jël ko ñu fayal ko léegi jël ko jën fayal ko rek mooy mooy doon fayuk àndaat bi léegi mooy man wujida fii rahlihi fa huwa jazaauhu kazalika najzi zalimin bu ñu ko gëstoo koo ko fekk ci biir bagage am na ko jël fayi koo ko ndax loolu mooy fayuk ab toncat léegi nag ndaw li ni leen kon mën ta ñàkk ñu wisit leen léegi moo wisit seeni i bagage du ngeen fi jóge mukk te du ma ko wisit bu noppi daal di ànd ak ñoom de loolu leen ci Yusuf tàmbuli nag di gëstu tàmbulee ci seen i ndab di gëstu ndab par ndab bagage bu mu wisit ba koo ko jox man ko yow mën ngaa taxaw ne la mujj nag mbokkum Yusuf moom di bin Yaamin buñ demee ba agsi ci daal cee génnee àndaar ja ci bagage bi njaan yi mun leen lu ma leen waxoon yéen a ko jël ñu daal di jaaxle nag am nan na xam ñu wax ñu ne bu sàccee day mbokkam sàccan na bu dëkk moom war laa mën a sàcc ndax yusuf moom mbokkam lay sàccan na léegi kon léegi baax borom xam-xam yi neen sàcc googu mooy lan ñu ni yusuf dafa mas a sàcc xeramu maamam dem sànni ko loolu mooy kàddu yi ñu tuutumal naan fax allah faxat saraxa axullahu min qabl